tey man de su ma woyee xolam ma woy loo tey yuusu taalu be sëñ Tuubaa bi laay woy xana yuusu ndu sëñ Tuubaa nga doy loo bëggatuma dégg wax ju ñaaw ci yuusu bëggatuma dégg wax yuusu yuusu Sénégal mënoo fa ñaaw yuusu yuusu buñ la ñaawoo mënoo ñaaw yuusu yuusu ndey soxna bu mooy sa yaay yuusu Ilimaan kooku mooy sa baay Yusu njakandu ngaboka ndayak bay. Waya yusu ibu ngaboka ndayak bay. Yusu abindu ngaboka ndayak bay. Yusu yusu wasambah katwanyi wulsambah. Wachimbahu yusu wanyi wulsimbah. Khana day feke kubonon monabah. yuusu nee naa la tey ma woy la yuusu yuusu wax sa mbaax kat wàññiwul sa mbaax yuusu danga baax te seetlu woo sa mbaax yuusu yuusu buñ la ñaawal mbilaay mënoo ñaaw yuusu buñ la ñaawal ndaxte mënoo ñaaw xana yuusu ndoo yuusu ndey soxna mbub xana yuusu ndoo ilimaan du sa baay la yuusu li nga am da dem ko liggéey ndóor yuusu sa alal dem ko liggéey ndóor yuusu ba ngay liggéey sa noona ngay xandoor yuusu ba ngay liggéey sa noona ngay xandoor yuusu yuusu buñ la ñaaw la yuusu mënoo ñaaw ñaaw yuusu li nga am da dem ko liggéey ndóor Sénégal nga juddoo liggéeyee Sénégal Sénégal nga juddoo liggéeyee Sénégal Sénégal nga amee defaat ko foofu yuusu dana deloo njukkal yow yuusu yuusu Sénégal de amee nañ la njukkal lan moo tax boo ñàkkee ñu lay ñaanal soo ñàkkee ñu lay ñaanal naan na yal na nga am soo ñàkkee ñu naan yal na nga am yal na nga am waaye soo amee ñu soppaleku noonu soo ñàkkee ñu lay ñaanal yàlla nga am waaye de boo amee ñu soppaleku noonu waaye yuusu Sénégal mënoo fa ñëw man de nee naa leen xolama wayloo yuusu ndey soxna mbuub xolama wayloo yuusu Elimaan de xolama wayloo yuusu Sénégal de xolama wayloo man de suma juumee bilaay nga ngeen ma baal man de suma juumee na ngeen ma baal nañu rafetal de li ñuy def ci Facebook bi nañ ko rafetal de bilaay rafetal leen ko ndax ci lu ci xasa dugg dootul deñ lu ci xasa dugg bilaay dootul deñ ndoy ba nee ne rafetal leen facebook bi li ñuy def ci facebook bi bilaay na rafet li ñuy def ci whatsapp bi bilaay na rafet bilaay na rafet ndax souvenir ya moo tax lu ca dugub bi laay dootul dañ nee naa lu fa xasa dugub bi lay dootul dañ yuusu buñ la ñaawal bi laay mënoo ñaaw yuusu ndey soxna mbub da bu laay nee naa leen yuusu li nga am de danga ko liggéey ndóor liggéeyee ci réew mi amee ci réew mi liggéeyee ci réew mi amee way ci réew mi yuusu nee la defaat ko ci réew mi kon yuusu amee nañ la njukkal yuusu man bëggatuma dégg lu ñaaw ci yuusu man de nee naa leen xolama wayloo yuusu bëgg naa la xolama wayloo man de sargal naa la képp kuy jigéen sargal naa jigéen ñi ci huit sargal naa jigéen ñi ci huit mars bi yaay nde la man de sargal naa la sama yaay booy de de sargal naa la yaay boo da jigéen ju mën góor sama xel moo dem ci dëggan si men baabu sama xel moo dem ci dëggan si men baabu xana dëggan si men bilaay mu baabu jigéenu Yuusu Nduur de bilaay teel na reer yaayu Pape Cheikh Diallo bilaay teel na reer liggéey na ci média ba xëy bàyyi ñoo liggéey na ci média ba xëy bàyyi ñoo waaye waxu falu ñëw te defu falu ñëw waxi mam yi woon na jëfinam yi woon na waxi nam yi woon na jëfinam yi woon na waaye boko mosa mosaana wax kuy sa doom mu sama doomu xol de mooy Pape Cheikh boo ko mosaana wax dangeen kuy sa taaw mu sama taaw bu góor de mooy pap Cheikh Pape Cheikh Diallo borom yeewu leen Cheikh Diallo mu kiyaa ay dara Pap Cheikh Diallo borom Sénégal Pap wax sa mbaaxkat wàññiwul sa mbaax pap Pape de wax sa mbaaxkat wàññiwul sa Cheikh sa pap de bëgg naa la fii laa la def pap pap de fonk naa la fii laa la def pap man de bëgg naa la ndax dëggan si meen baabu pap de fonk naa la ndax dëggan si meen baabu papa Cheikh Diallo borom yeewu leen papa Cheikh Diallo mu kii yaa ay dara pap ku njëkk yeewu bilaay yaa ko yee Sénégal de ku fa yeewu pap Cheikh moo la yee papa Cheikh Diallo borom yeewu leen papa Cheikh Diallo mu kii ay dara man de nee naa leen sargal leen jigéen waaye lu fi baax de jigéen a ko baaxal man de ragaluma bilaay nee naa leen ragaluma cat waaye aqala ragal ragaluma cat de waaye aqala ragal waaye benn fan ci bameel jar xalaat benn fan ci bameel jar xalaat yaay. man de nee naa leen bilaay nee naa leen nañu rafetal de li ñu def ci facebook bi ndax bu ëllëgee souvenir ba moo tax lu tax boo ñettee ñu naan yal na nga am waaye boo amee ñu soppaleku noonu man de nee naa leen bilaay nee naa leen man de sargal naa képp kuy jigéen xaadim italien sargal naa sa yaay Khadim dar geej man sargal na sa yaay man de neena le sargal len jigen mom de lu fa bax de na fa jaar man de leen naa lu jigen na fa jaar waye bu sa te jigen na fa jaar waye neena sargal len jigen le huit mars la mooy feetu jigéen kuy jigen sargal na la waye sargal na la kep kuy jigen man de su ma juumee na ngeen ma baal waaye su ma juumee bilaay baal leen ma man de su ma juumee bilaay na ngeen ma baal na ngeen xam ne xolama wayloo bilaay na ngeen xam ne xolama wayloo waaye lan moo tax ñuy boom suñu rakk yee waaye lan moo tax ñuy xayal suñu doom yi waaye lan moo tax ñuy rey xale yu ndaw yi man de su ma ko gisee sama xol day jeex. waaye su ma ko gisee sama xol day fees su ma gisee ñu rey xale yi ndeysaan bilaay sargal leen jigéen ñi sargal leen bilaay sargal leen bilaay sargal leen ñu bilaay sargal leen sargal leen ñu xanaa xamoo leen jigéen mooy jur doom waaye jigéen mooy jur xale yu ndaw yee billaay bàyyi leen jëf ju ñaaw dina naa leen yuusu wax sa mbaaxkat wàññiwul sa mbaax yuusu danga baax te seetlu woo sa mbaax yuusu danga liggéey billaay nee naa leen yuusu li nga am de danga ko liggéey nduur yuusu ba ngay liggéey sa noona ngay xandoor yuusu ba ngay liggéey sa noona ngay xandoor man de nee naa leen billaay nee naa leen dëggan si mel liggéey na ci média yi liggéey na ci média ba xëy bàyyi ñoo waxu falu ñaawkat kat defu falu ñaaw man de dëggan semaine bi laay nee leen su mosoon a wax balaa muy waxati su ma mesoon a mer ba déglu dëggan semaine dëggan semaine daf may delloo si ndeysaan looloo tax ma ko fàtte nee naa leen nañ ko rafetal ndax loo gis dafay jeex nañ ko rafetal ndax safanir ya moo tax nañ ko rafetal de àdduna day jeex ngir bu jeexee kat safanir ya moo tax ngir bu borom demee safanir ya moo tax ndax facebook bax lu ci xasa dugu lu xasa dugu bi laay dootul den xaadim italiana man de nuyu naa la xaadim dargeej da man de nuyu naa la xaadim sargal naa sa yaay man de nuyu naa la xaadim fonko naa la danga fonko sa yaay man ko fonk yaayam man de fonko naa la ndaxte lu fi baax de jigéen a fa jaar bilay sargal leen sargal leen jigéen ñi bilay bëgg leen jigéen ñi sargal leen jigéen ñi ndoy ba def leen attention def leen attention ci whatsapp bi waaye def leen attention ci facebook bi lefante lu ñaade bilaay jaru ko ndaxte loo fa xasa def te bilaay dootul deñ lu fa xasa dugg bilaay dootul deñ man de suma jume bilaay ngeen baal ma man de suma jume nee ngeen baal ma man de suma wàccee yoon ngeen baal ma ragaluma cat de àq laa ragal ragaluma cat de àq laa ragal benn ci bàmmeel jënd xalaat yaay àq dalay topp ba sa bàmmeel yaay man de suma juumee bilaay ngeen baal ma ngela suma juumee bilaay ngeen ci tooñ bilaay nga baal ma man de kuma ci tooñ bilaay baal ma man de ku ma ci tooñ bi laay jégal ma